lu ci mel ni cinq cinq hôpitaux yi nga xamante ni pare na ci 2020 bi te man ma bokk ci muy Kaffrine Kédougou Touba ak euh, añam ak euh, Sédhiou yi nga xam ne ñu ngi koy waaj a ubbi monsieur ministre mu nekk loo xamante ni lu am am solo la parce que nag santé balaa ngaa wax balaa nga naan naam dafay nekk te santé dafa nekk loo xam ne lu am solo la waaye monsieur ministre aussi di rafetlu hôpital bi nga xam ne war nañ ko def Diamniadio muy faj cancer monsieur le ñu war ko tabax ci ci ñaari at monsieur le ministre hôpital boobu bu paree dina dina jàppale Sénégal yëpp te sax lay doon aussi si Sénégal ndax jàpp nañ ne Afrique de l'Ouest amul fi kon loolu aussi ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm monsieur le ministre ngeen bëgg a defaat aussi yeneen hôpitaux yu am solo fu ci mel ni Saint-Louis mais war ko def Ourossogui ak fu ci mel ni sayli louis ak Ourossogui ak yeneen hôpital yoo xamante ni war ngeen ko ak polyclinique bu Dakar monsieur le loolu dañ koy gën a rafetlu aussi bu baax a baax li ma gën a neex ci liggéey bi mooy gaaw bi mu gaaw ak am fulla gi maam fulla kon président li waxoon ne fast track yeneen yi mais monsieur le ministre aussi recrutement ñu ciy def lu ama parce que bu ñu gisee rapport bi page 61 gis nañu ngeen def foofu ay recrutement yu am solo bu ci mel ni def ngeen 700 defaat 600 defaat 800 loolu mu nekk 2100 agents de santé monsieur le ministre loolu da ngeen ci félicité ñu gisaat banque mondiale aussi war a jëlaat cent cinq agents yoo xamante ni seen loolu bu amee tey li ñuy jooy ci personnel foog naa ne dina mën a wàññeeku. monsieur le ministre dëgg la ginnaaw bi ñu rafet loo hôpital bu Kaffrine ma jugee ci département bu Koungheul parce que nag Koungheul Kaffrine dafa nekk 80 et quelques kilomètres monsieur le ministre ñu bëggoon nga gën a xalaat te def ko mooy hôpital bu Koungheul ñu def ko niveau 1. parce que boobu dina dina gën a tax hôpital Kaffrine bi li ñu ko yen aussi mu attan ko. ñu am ay poste de santé yoo xam ne mu ngi ci département bi bu ci mel ni poste de santé bu Gént Pathé ñi boobu bëgg nañ ñu ko bëgg nañ ngeen jàpp ñu parce que Gént Pathé dafa xaw a sori ak Koungheul ak Nguy Jaraaf monsieur le ministre ambulance yi ngay joxe ñu ngi la ciy félicité bu wax di ko félicité président de la république ambulance yi ñu ngi ko jox ay responsable politique lañu nekk ay jigéen mais gagné seen base ba ñëw assemblée nationale te assemblée ambulance yi ñu ngi ko jox aussi kenn gaare wu ko këram dañ ko jox population bi parce que ñoo ko demandé kon ñu ngi lay encouragé bëgg nga yokk ambulance yooyu nga xam ne yaa ngi koy joxe monsieur le ministre ku ci mel ni Arafa bëgg nañ nga jàppale leen ci ambulance ak Dimiska ak Lour Escale Fass Cekkeen monsieur le ministre loolu ñu ngi lay ñaan nga jàppale leen ñu am ay ambulance maa ngi lay gërëm bu baax di gërëm aussi say collaborateur nga may ma rek ma tànn ci Ibrahima Fall euh, monsieur Ngom Daal ak monsieur Mbaye Amadou Diouf Ibrahima Ja,